am encore une fois seen biir émission yaatal yaatal nag saa su dee dama koy wax dañuy topp li nga xam ne mooy actualité politique ñu dalal kenn war ci waxtaan ba tax tey ñu dalal kenn ci ki nga xam ne euh, dafa bokk ci li nga xam ne mooy coalition Dionne 2024 muy El Hadj Talla yor kaddu ki nga xam ne mooy njiital boobe coalition El Hadj maa ngi lay nuyu di la remercier ci. accepter invitation di la bàyyi nga nuyu ak ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. Ndeye Marème merci jëre ngeen jëf man itam maa ngi lay nuyu di nuyu waa. Sunugal 24 point net. Mhm. mu nekk donc voilà télévision boo xam ne internet yi bëgg nañ ko lool. Mhm. et ngeen di def liggéey bu am solo loolu itam ñu leen ci félicité di leen encouragé. Mhm. voilà vraiment di nuyu si ki nga xam ni moom mooy sa kilifa. di rafetlu invitation bi nga ma invité. pour ñu waxtaan. voilà ci li nga xam ni moom mooy actualité dëkk bi. Mhm, mhm. merci élage Hadj euh, ñu fàttali internet yi ñuy topp nga xam ne mën ngeen ñoo suivre suñu plateforme yi nga xam ne miin nañ ko seen émission yaatal tey ñu dalal élage balaa ñuy tàmbali nag euh, jaadu na euh, ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan El nga defal ñu bref présentation rek ñu mën a xam kan mooy élage Hadj Talla. waaw El Hadj Talla la. Mhm. journaliste première génération Sud FM. ñun la donc rajo privé ñun ñoo ko fi commencé. boobu RTS rek amoon après bi ñu jógee Sud FM aussi bon dañ ma affecté Tambacounda comme euh, voilà directeur de Sud FM Tambacounda. ba pare ma nekk fa le correspondant régional donc bi ma fa jógee ñu affecté waat ma Dakar. à la maison mère à l'immeuble Fat j'étais chef du service politique de Sud FM. donc fekk juste a Wade il est arrivé au pouvoir c'était en de Mm -hmm. et après ça Pape Diop quand il a eu son projet de radio municipal il a débauché de Sud. ci mhm. laa jógee Sud dem municipalité bu Dakar radio municipale. RMD RMD après. <clears throat> voilà bi ma jógee RMD je suis allé à Paris parce que j'avais un stage de deux ans bu ma waroon def. Mhm. bi ma ñibbisee Pape Diop. nommé ma rédacteur en chef de la RMD. Mm-hmm. et donc voilà donc euh, voilà bi ma nommé RMD après bon après quand ils ont eu des bruits moom ak ñoom Macky Sall ak affaire yooyu tu vois j'ai dit que bon moi je ne vais pas prendre de position après ci lañ ma dindi. mettre à la disposition de la rédaction. Mm mais entre-temps j'ai fait beaucoup de ministères. Mm-hmm. ba mm -hmm. 2012 quand Macky est arrivé parce que je l'ai accompagné pendant campagne électorale am yëpp. 2012 man maa yore woon visuel de yu bari. alors en 2014. Mm -hmm. quand il a nommé Mohamed Boun Abdallah Dionne premier ministre. Mhm. ci la Mohamed Boun Abdallah Dionne ñëw nommé ma conseiller technique chargé de la communication à la primature. Mhm. mais avant ça j'étais au ministère de la formation professionnelle apprentissage ak artisanat comme conseiller technique. aussi riche parcours voilà mhm. donc tu vois donc j'ai fait tout ça avant ça je suis passé même au ministère de la pêche parce que il fallait que sama formation journalisme ma jéem ko parfaire. ak aussi une connaissance de l'administration centrale dafa am mhm. solo sooy wax mbir bés bu nekk mhm. laaj na yenn saa yi nga dem fa xool nu muy demee ak nu mu tëddee ak nu nu ko tëggee ak euh, gën koo comprendre daal looloo taxoon donc j'ai fait beaucoup de ministères mhm. avant may jeexal nekk conseiller premier ministre et puis même après conseiller premier ministre j'étais au ministère du tourisme et des transports aériens avant maintenant de retourner au ministère de la Jeunesse. Mm Voilà donc le parcours, si vous voulez, un peu, mhm. si vous voulez, bref, de, mhm. voilà de El Hadj Talla. Euh, je je vois que ni yaa ngi di wax tout le temps euh, Mohamed Boun Abdallah Dionne donc la euh, le nekk nga nekk porte-parole am tey euh, mën nañ ne àndandoo bi lu lu yàgg la. oui àndandoo bi yàgg na parce que man Mohamed Boun Abdallah Dionne Macky Sall moo ma ko présenté. Mm -hmm. bi Macky di nekk premier ministre mu nekk directeur de cabinet mm ci la ma ko présenté parce qu'on travaillait sur un concept de communication très innovant donc mu dénk ma ko depuis boobu nag dañoo fasante coloré mm-hmm. donc ça fait vingt ans loolu la woon mm-hmm. ba 2014 dix ans après bi mu nekkee premier ministre la ma ni ba écoute tu sais vraiment je voudrais qu'on continue liggéey bi ñu doon liggéeyal président donc ci lañ nekkoon pendant les cinq ans yi mu nekk premier ministre mm-hmm. loolu moo indi sama diggante ak Mouhamed ba heure bi mhm. voilà donc après primature aussi ñu continuer maintenir relation yu ñu amoon parce que euh, ay relation yu sincère la ak yu honnête daal. Mhm. voilà euh, merci beaucoup El euh, ci ci siège boobu la ñuy des en tant que porte-parole Mouhamed Boun Abdallah Dionne dañoo gis récemment semaine passée nga posté benn vidéo di dénoncer que ni da nga dem doon voyager. nga dem au niveau de l'aéroport ñu ñu interpeller la confisquer ce passeport mën nga revenir un peu sur les faits ce qui s'est réellement passé jour boobu. voilà ce qui s'est passé mooy jour boobu comme tout Sénégalais dama dagg sama billet avion. Mm -hmm. donc voilà yore sama passeport. Mm -hmm. bon passeport oui passeport diplomatique la. alors bi ma ñëwee euh, yegg si aéroport ñu ne ma bon enregistrement commencé na ma dem ci ndaw si nekk Air Sénégal. excusez-moi c'est pas de la publicité mm je crois ñu ne ma bon voilà enregistré ma enregistré sama valise ma fiile ko ak yëpp ñu enregistré sama valise ñu dugal ko ci suutu ak ci sut bi mm-hmm. mu dem donc ndaw si ne ma bon léegi mun nga dem embarquer porte six mm-hmm. bi ma demee porte six pour embarquer ma yegg si dajeeg benn policier bu taxaw foofu ma ni ko mais euh, sama passeport mu ngi nii doo ma jàppale parce que bon moi ça fait longtemps que je suis pas venu ici mu jël sama passeport ne ma suis-moi ma topp ko il était en mhm. ma topp ko mu dem ba ci patron c'était l'accident. Mhm. accident bi ñëw accident bi sax yàlla def nañu xamante parce que quand j'ai servi à papa moo nekkoon commissaire de police su Tamba donc bi ma gisee bi mu jaaree sama suuf sax eh El Hadj Talla Sud FM Tamba nii vraiment grand gis naa la gis ma ne ko wéy mais mon neveu ana sa papa ñu waxtaan nii affaire yooyu. Mhm. mu ne ma suis moi dans mon bureau. ma suivre ko dans son bureau. bi ñu yegsee toog mu ne ma pour man sax dañuy xool ba xam c'est un passeport en cours de validité wala bon parce qu'il est écrit sur les passeports diplomatiques que euh, nous avons droit à une assistance des forces de défense et de sécurité. Okay. man loolu la quoi. Mhm. alors j'arrive mu ne ma mais tonton mu ne ko mu ne mais je suis au regret hein, de t'annoncer que j'ai reçu des instructions pour autoriser ton passeport. Hmm. waaw mu ne ko mais kan mu ne ma non vraiment mënuma la ko wax. mais c'est des instructions fermes que j'ai reçues pour nangu sa passeport ba pare mhm. mënu ko mais léegi nag nangu ngeen sama passeport sama bagage yi ñu embarqué nag fu ñu jëm sama mhm. bagage yi ñu enregistré ba pare ndeysaan yi a été très sympa très gentil mhm. boole ma ak benn ci ay agent ne ma écoute tu sais demal dina la wër donc ma dem ma ak agent bi wàcc nañ wàcc wàcc wàcc wàcc ba ci suutu avion bi hmm. boobu dugal nañ sax valise bi ci presque surtout avion bi. Mhm. ca lañ dem après agent bi vraiment assisté ma ba ñu après jox ma génne suma valise bi ma enregistré woon jox ma ko agent bi gunge ma ba ma génn aéroport bi ne ma bon maintenant. tu peux voilà aller prendre voilà un taxi pour rentrer. donc noonu laa des instructions de fan. duñ la ko wax des instructions la ñu wax mais duñ la ko wax. man j'ai voulu savoir kan moo joxe instruction bi mais ba léegi ñoom duñ la kii moo joxe instruction wala kii nee na daal ndigal euh, ndigal bu nu ko jox la. Mhm. exécuté na ko j'ai compris aussi que bon mhm. peut-être duñ la wax kan mooy joxe ndigal li. Mhm. mais man xaw ma lu tax ñu joxe ndigal euh, ñu joxe ndigal li. mais y avait pas de problème ci côté passeport bi. aucun problème passeport boobu voyagé naa ci sax y a même pas six mois au mois de juillet passé. le même passeport naa ci dem France ñëwaat. bi ma demee France ñëwaat donc c' est un passeport en cours de validité. donc juillet de mooy récemment juillet deux mille vingt quatre bi la passeport bi waroon jeexaat parce que c' est un passeport d' un mhm. donc euh, passeport bi amul benn problème. donc bi ma ñëwee daf ko jël après ne ma bon euh, man c' des instructions que j'ai reçues pour te retirer ton passeport et tout de suite mënu ko mais kan mu ne ma non franchement mënu ma la ko wax kan je ne mais c'est des instructions que moi j'ai reçues nekkul ni peut-être warul woon yor passeport diplomatique bi moo tax. non passeport diplomatique. Mhm. ça fait plus de dix ans ma yore ko passeport diplomatique. il faut parce que ñu bëri ñu ngi posé wu loolu la question. boobu voilà mais mhm. passeport président de la république. Mhm. rek moo am sañ-sañ ak dogal may ko ku ko neex. parce que am na ay ñu feebar ñoo xam ni tey di dem wuti visa day metti si ñoom. da leen koy may. am na sëriñ ay kilifa diine. yoo xam ni ji jii dañuy am ay taalibe partout dañu koy soxla da leen koy may na sax ay yoo xam ni su Senghor dañ leen mayoon ay passeport diplomatique parce que combat yi ñu doon mënee les Mandela. Mhm. donc yooyu day am président moo am exclusivité bi. Mhm. ku mu neex lay may ku mu neexul du la may même les ministres et le premier ministre su neexul président du leen may donc président moo yore ex loolu moom c'est du domaine. réservé du président de la république. mais mais élage El Hadj passeport léegi passeport diplomatique léegi am na ci ñoo xam dañ koy yor sax te waruñu koo yor. waaw mais xam nga en réalité man bu doon sama sago Sénégal yëpp am passeport diplomatique. Mm. waaw xam nga lu tax. Mm. parce que passeport diplomatique ça te permet juste de traverser les frontières te xam nga ñun pour ñu dem tugal day metti metti yoo xam ni. ay dem ñaan fii visa ñu rejeté la tout la mm-hmm. tension là man bu ma doon tey jii président Sénégal peut-être que ñëpp sax dinaa leen may passeport diplomatique xëy na dana wàññi sax loo ca yi xale yi jël. Mm-hmm. mais parce que passeport diplomatique c'est pas un truc extraordinaire. mais bi ñu ko jëlee da nga cee mer wa mais non c' est à dire non meruma bi. non xam nga lu tax ma def vidéo indexé droit am na ci ñoo xam ne indexé nga ko directement non non jiñu ma ko kenn man. alkaati bi ko nangu joxuma raison donc mënuma jiiñ kenn par contre j'ai dit que man j'ai compris et ça je l'ai ak alkaati bi nangu sama passeport diplomatique mënu ko mais man maa ngi comprendre ni c'est parce que mhm. je suis le porte-parole de la coalition John 2024 mais avant ça loolu ban rapport la am rapport parce que avant ça bi ma jógee France ba ñibbisi mhm. avant que Macky Sall ne choisisse son candidat mhm. avant Macky di choisir. Mm. ci laa voyagé ñëwaat. Mm-hmm. bi ma voyagé ñëwaat j'ai fait une sortie dans les médias. Mm-hmm. pour dire que il s'est trompé de choix. Mm. et que le meilleur choix c'était Mohamed Boun Abdallah Dionne avec qui il a fait vingt ans. Mm-hmm. c'était pas Amadou avec qui il a fait. Mm, la Amadou Ba ñëw donc loolooy coow li. donc j'ai fait une sortie en leur disant que j'étais pas d'accord avec le choix de Amadou comme candidat de Benno Bokk Yaakaar d'autant plus que il est c'est un tard venu bi muy ñëw dafa fekk lang ji jeex na ba pare sax. Mhm. donc ñëw bëgg a yenu xew bi comme disent les enfants loolu aussi dafay xaw doy waar. loolu bokk na sax ci sama ci samay questionnaire donc nañ ko war nañ ci waxtaan directement euh, euh, choix boobu choix boobu yéen yéen pratiquement euh, yéen lañ defoon premier plan. mais ñëpp dañ doon ne bun mooy mooy mooy mooy candidat wu Macky mais waa Benno ñoo choisir Amadou Ba. oui mais en réalité tu sais. Euh, loo yaakaar ni moo waral changement Mahammed Boun non en réalité duñ la wax lu tax lan lan moo ko waral. Hmm. man je demeurais convaincu. Hmm. et comme tous les gens de l'APR. Hmm. yoo xam ne ils ont cheminé avec président Macky Sall. que Mohamed avait le meilleur profil et le meilleur parcours. pour ñu tànn ko comme candidat parce que c'était un candidat de consensus. moom ñëpp kay loolu lañ doon. voilà c'était le candidat en réalité, il avait une promesse ferme. Man, par exemple, je donne mon cas, c'est le plus simple. Mhm. Il fut un temps, j'ai voulu sortir un livre contre le troisième mandat. Hmm. parce que je n'étais pas d'accord. Parce que aussi, xam nga dëkk bi benn nit du ko defar ak benn génération ay nit nit a koy defar ay génération ay génération États-Unis ça se construit ba léegi France ba léegi ñu ngi construire et ça fait trois cents ans ou trois ça fait siècles qu'ils sont en train de travailler. Mhm. ak defar dëkk du jeex. déedéet nit ñaa ngi dund da ngay defar di yeesalaat di kii lool nag du benn nit a koy def du ñaari nit du benn génération du ñaari génération. Mhm. donc da ngay def li ngay def nga def ko ci temps bi nga koy def nga dem jox keneen mu ñëw def li muy def mu def ko ci temps bi muy def man c'est ça que je et c'est ça que la constitution sénégalaise dit. Mhm. dit plutôt amoo droit def trois mandats. parce que loolu Macky Sall daf ñu cee mobiliser ñu xeex ci ak Ablaye Wade ba tëdd ci suuf. Mhm. donc moom bu ñëwee. tey jii ñuy laam-laame dina def du def troisième mandat dama ko ni wax ni def troisième mandat oui mais ah, sauf ko wax tout à mm. fait ça je suis d'accord mm-hmm. ko wax mais en réalité il a laissé aussi nit ñi ci benn flou boo xam ni mm-hmm. ça fait l'objet de toutes les interprétations possibles mais bu ko teyoon wax du ko du ko arranger mais pourquoi du ko arranger pourquoi du ko arranger mois je me limite à deux mandats et puis maintenant je crois que sax su ko teeloon wax moo koy gën a arrangé contrairement à ce que les gens disent. Hmm. parce bu boobaa dina mën a identifier tout de suite ñi nga xam ni ñoo ci ànd. Hmm. tout de suite ñi nga xam ni mënu ci ànd mu gën a mën a préparé wu. mais doo bàyyi les doo bàyyi sénégalais yi dans le flou ba mu am li mu ci am yëpp. Hmm. regrettable gis nga fi. ay dee yu bari ah ay manifestations yu dul jeex. yooyu yëpp donc moi je crois que. mais le choix de Amadou mais en fait parce que Amadou. Mhm. Amadou Ba du yóbbu dëkk bi fenn. xam nga lu tax Amadou c'est un agent des impôts domaine domaines xam nga lu mu xam. Mhm. jël ci poosu sénégalais yi dugal ci keesu état mënul dem extérieur wuti xaalis parce que ne connaissent pas la finance internationale xamu ko. mais Macky nga koy épaulé instant bi non mais Macky su fi nekkatul nag il sera seul. ba jusqu'à quand la koy Macky di épaulé candidature Amadou Ba bi euh, mun nañ koo méngale ak candidature Macky rek de ndax Macky nekk si ginnaaw. oui mais Macky évidemment en fait Macky moo nekk si am mais kaay ma wax la. Mm. na def ndànk. Mm. bés bu Amadou jotee lengay dootul wax ak moom. ah bon leer la lay wax. loolu moom ñi xam Amadou Ba ñëpp ko xam. lu tax nga wax loolu élage Hadj. Amadou Ba jaamu soxlaam la xam nga jaamu soxla. yow bu la soxla woon Ndeye Marème Ndiaye tey ñu ne ko Ndeye Marème Ndiaye fii la dëkk day ñëw donkan sa buntu kër toog di la xaar gis nga bu jotee ci yow li mu soxla. ba won la gannaaw. Mm. gestu sax du la ko defati. Macky Sall. Mm. bés bu Amadou nekkoon président. Mm. dina la wax leen da nga jàpp ko yàlla rek xam na kuy nekk président. Mm-hmm. bu ko woowee tey dana jël de. bu ko woowee deuxième fois dana jël bu ko woowee troisième fois du jël. yaa ngi tuumaal Amadou mais la me loolu ñëpp xam ñun xam nañ ko mais noonu la mel. non mais nan la deful ak Karim Wade. Mhm. génération du concret la nekkoon no mhm. entre les de tour la ñëw ci Macky avant génération du concret il était partie parti socialiste mais après du wax sax ak Karim Wade heure bi te Karim amul lu mu defalul Amadou Amadou Ba tey jii c'est que loolu ñépp a ko xam ci Amadou Ba jaamu soxlaam la bu la soxlaa moom. ah boo doon dugg sax ci biir safara dana la génne soxla jël li muy jël ci waaye bu la waree gannaaw. wan na la gannaaw pare na ci du nit koo xam ne dafa am kóllëre wala kuy xool démb wala barki démb moom. Mm. avancé rek. mais mais mais mais El attention am na ñu naan euh, euh, Boun Abdallah Dionne mun na nekk plan B wu Macky waa tey jii bu fekkoon euh, pour pour dajale comme li ñuy wax toujours Amadou mun na am possibilité dajale ñenn ñi nga xam ne ay tenoor lañ biir bennoo bu ñëwee di waxtaan ak Boun Abdallah Dionne tendre que mm. la main nag. mais Amadou. yaakaaroo loolu non Mohamed Boun Abdallah mënul nekk plan B wu man rek dèjà mënul nekk plan B mag Macky. Ah. man rek dèjà doy naa ci firnde. man maa ngi nii man maay porte parole bi ma demee bëgg réew mi da maa téye su doon plan B kenn du ma téye danañ ma ni ah comme mooy plan B bi dañ ko bàyyi mu dem dox soxlaam. way hmm. man firnde laa ci. aéroport dama ñëw ñu ne ma noo taxawal fii liñ ma taxaw loowee nangu sa passeport parce que dañoo recevoir ay instructions su doon plan B kay xanaa duñ joxe ay instructions kon yow loolu da nga jàpp ne politique moo nekk mais évidemment seen communiqué bi sax d'ailleurs loolu ngeen cee wax mais oui euh, euh, communiqué ñaawlu loolu ñu la mais du man rek su doon plan B it mu niru si kenn du ko dàq primature conseiller spécial bu Amadou Ba la woon su doon plan B wu Amadou euh, nu mu tuddati euh, Mouhamed su doon plan B wu Macky Sall. Mm. Euh, Mamadou Moustapha Diagne bi nekkoon directeur de la formation et porte-parole du ministère de l'éducation kenn du ko fa dàq. Mm-hmm. bu doon plan B wu nu mu tuddati président de la république Habib Niang ba ñëwoon ci ñun duñ ko démarché nangu ko indiwaat ko ci. Amadou Ba donc Mouhamed Mouhamed Boun Abdallah Dionne du plan B du plan Z. Mm. Mouhamed dafa am fulla ak fayda. bi mu xoolee xam ni président tànn ko dafa jël son courage à deux mains li gars yi doon wax nag dañ foogoon ni wéy du quelqu'un koo xam ni benn wii wii non non mais nag waaw mais ne du yeexu koo jël xam nga lu nekk aussi politique dafa am lu ñuy wax momentum lu nekk ak tempsam la lu nekk ak tempsam la c'est-à-dire xam nga wéy mais wéy loolu la man sam bopp xam nga lu mu wax dama hmm. petit frère mënu koy mu ne man su ma naree opposé ak Macky Sall yàlla na ma yàlla rey ma ne ko ah yow de bëgg nga kii ba mu for mu ne ma non damay wax dëgg rek nee na ma xoola man ma ànd ak nit ba pare di ko galgal mm. surtout koo xam ne nag defal na ma teraanga gune maintenant nag ya fi yegg na foo xam ne moom nee na bokkatul mm-hmm. bokkatul ñun am nañ waaw tànn na keneen ñun kay am nañ droit tànn ñun itam ku ñu neex waaw ndax Amadou leen ba mais parce que mais mais déggoo li ma la Amadou Ba entre les deux la yegg si te Amadou Ba xam nga kañ la dugg bi ngeen di moom ma nga ca kër ga Ba amaru Ba ba nuy xeex moom ma nga fële di ñu xeex premier tour moom ñoom Karim Wade génération du concret bi mu xoolee affaire yi xaw a dëngalu tuuti la daw ñëw yegg si entre les deux tours bi mu yegg see ñun ñëpp dañoo jaaxle Mermoz ne waa kii lu mu fiy wut. Badou di. barki laa lay wax ni kii lu mais xoola mu ñëw def li muy def ba pare dem man dama daf bi mu demee président commentaire bi mu def ñun ñëpp dañoo jaaxal ñun dañ ne woon kii moom président bés bu nekkee président. du fi sax taxaw cinq minutes moom fu ñu jàppee Karim Wade normalement war nañ ko jàpp. la ah mais parce que daf doon def ak ay Karim Wade yu bari nañ waxante dëgg. Ah. mais Amadou Ba kenn musul xalaat ni. dana am poste bu mais non mais Amadou yow itam Amadou ñëpp xam nañ foo gisee fonctionnaire milliardaire fonctionnaire milliardaire foo ko gisee salaire. mu xam ko loo tax waa mais parce que foofu en réalité kenn bëggu ko foofu bennoo Benno enfin am na ñu ko bëgg. évidemment mais léegi lu tax ñu nangu ñu fexe ba ñu imposer leen. mais euh, Amadou Ba comme ça. mais mais mais mais loolu nag. mais ñu bëri nee ñoom ànd nañ ci choix bi. non non non non non tu mais xam nga ñi ànd ak moom ndeysaan dañuy rus Macky sàll rek. Hmm. comme ay Ablaye Daouda Diallo yooyu. Hmm. mais Ablaye Daouda ak Amadou du ñu laalante comme Thiès ak safara la. looloo fi am. Mhm. Sénégal xamante nañ nañ waxante dëgg. ñu ci bari ñi rallier tey jii surprise biir ñoom. ci naka ñu war Amadou Ba. kan ah, de. Mm. je sais pas je ne pense pas man si Benno xaw sax. lu ñuy def heure bi bon loolu non ça c'est ça c'est Benno moi je suis pas dans Benno moi je mm. suis dans John 2024. Mm-hmm. direction wu John 2024 laa xam direction wu Benno bañ ca génnee man laa gëj a xam. la xew foofu franchement. mais seen biir communiqué bi ñoom ngeen indexé. parce que yéen a ngi naan. Euh, euh, énième forfaiture. ben oui énième forfaiture parce que. bàyyi woo parce mm. que. comme je t'ai dit il y a le ñu dàq ko après lui avoir proposé un poste ministériel mu bañ ak xaalis mu bañ man ñu démarché ma te refusé ah ñu démarché kële no Moustapha Diagne bu mu ne Mouhamed Boun Abdallah Dionne laay laa àndal si suba si la ko Cheikh Oumar Anne dàq ministère de l' éducation nationale donc tu vois boobooy énième forfaiture donc ça n'a pas commencé ay moi donc et puis ça va se poursuivre ñun de toutes les ay affaire yoo xam ne aussi sóoraale woon nañ ko moo tax li ngay wax nii man affaire bi naqariwu ma de. Euh, ah loolu nag war nga leen ko laajee dafa mel ni dañ leen commencé déranger parce que xam nañ. xam nañ que c'est une candidature hyper sérieuse. Ah. waaw parce que gis nga profil ak liggéey. Hmm. dafa am. sa candidature bi kay dina dinaa ci ñëw. Euh, lu tax ngeen woote woon conférence de presse ba pare. après mujj gi dem def communiqué. voilà xam nga nag loolu itam conférence de presse bi. Mhm. ngeen keneen fi boucan boo xam ne presse bi nga xam ne à chaque fois yéen yéen euh, présence médiatique moom dafa mel ni da ngeen daw presse bi ñu woo tey ngeen am seen problème rek. woo presse bi ñu ñëw wuy si leen ngeen préparé seen teg seen conférence de presse annoncé lépp ñëpp préparé pour ñëw ngeen jékki-jékki annulé génneel ñu seen benn communiqué. oui oui en fait. tu sais voilà annulation bi li ko waral xam nga ñun nu faisons tous li ñuy def yëpp on se concerte. par exemple quand il y a problème qui sa pose président Mohamed Boun Abdallah Dionne day ñëw teg ko ci table bi. Mhm. mais voilà le problème. Mhm. ñëpp wax ci seen xalaat. ñii dañu waxoon nañ def conférence de presse man j'en faisais partie. Mhm. je disais que way il est temps ñu def conférence de presse pour wax sénégalais yi li nga xam ne ñu ñu koy def dañu bundu xataal ci suuf. waaw ñu leen voilà au niveau de am ñeneen ñu ne ko non conférence de presse day ëpp parce que mën nañ dugg bon finalement daal bi ñu waxee. Mhm. la tendance tendance bi dégagé wu mooy. au lieu de conférence de presse nañ def communiqué communiqué signé du président Mohamed Boun Abdallah Dionne looloo tax finalement comme la tendance mm. majoritaire mm. dafa bëggoon ñu def communiqué ñu def communiqué mais il y a une tendance qui était là qui voulait vraiment la conférence de presse looloo indi ñu annulé conférence de presse bon yow en tant yow. c'est un débat bi nga xam ne yow la yëf yi dal sa kaw. waaw man de man de suñ ma bàyyi woon man dong. Hmm. demoon naa ba jël saal sax pour def conférence de presse. ah bon waaw loo waaw waaw non en fait tu sais. Hmm. c'était pour expliquer. Hmm. seen méthodes yi nga xam ni ay méthodes yu dépassé la. xam nga man par exemple nga ne ma wéy hélas doo voyager France man ñaata yoon laa dem France depuis vingt cinq ans man man bi may njëkk a dugg France. passeport ordinaire laa fa dugg. en deux mille xam nga ban avion avion Ablaye Wade na ah? mu yóbbaale ma nii j'avais le visa passeport ordinaire donc sans compter que man j'ai fait deux ans en France pour faire un stage xam nga kon man su fekkoon France dafa ma kii mënoon naa fa toog entre 2001 boobu ma lay wax ak 2023 bi j'ai fait plus de cinquante euh, ou soixante voyages yoo xam ni en plus j'ai fait combien de fois le tour du monde avec mon patron premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne mm-hmm. donc man dem naa continent yëpp donc man du ay voyage ak affaire yooyu j'étais parti parce que je devais sortir je devais parfaire le livre bi ma la wax mm-hmm. mon livre là mm-hmm. moom laa doon parfaire parce que dafa am ay chapitres en France. Mhm. parce que France fii koo fi wax mu éditer livre boobu temps yooyu dañ naan la non non dañuy ragal ñu fermer suñuy entreprise. Mhm. parce que le livre il est pas très tendre avec le président ak affaire yooyu donc finalement j'ai trouvé un éditeur en France kooku. moo ma joxoon rendez-vous ma war a faa dem. mais yow selon woon ci ci li ñu mm. def mais non en fait li ñu la def nii. tu sais c'est c'est c'est c'est c'est c'est essayer de nous empêcher nous de nous déployer sur le terrain. way mm. loolu la rek. empêcher ñu ñu déployer sur le terrain parce que en France quand je vais. Mm. peut-être qu'ils vont ils ont peur que je rencontre des militants de euh, euh, que je débauche des militants de l'APR yoo xam ne ñu nga Mantes-la-Jolie wala ñu nga Évreux wala ñu nga Havre. Mm. Ah, parce aussi je connais beaucoup de monde là-bas mm. waaw parce que dund naa fa deux ans Mantes-la-Jolie donc ils ont peut-être peur de ça. Mm. waaye et puis ñoom ils étaient là-bas mhm. c'est ça. mais nag hélas yéen seen seen seen coalition bi si la ñuy jublu man jàpp ma ni waa Bennoo nag dañ leen a ragal ba ba war leen a def ay coup baax parce que. vraiment waaw léegi léegi ah. ragaluñ lu ñuy xëcc Habib Niang ragaluñu. mais du ngeen wax ak seen Habib Niang moom mu. waa déglu bàyyi leen dem fekk jëkkale. non non non c'est bon Habib son cas ñun dépassé nañ ko damay wax dëgg rek. Hmm. Habib moom vraiment cas am dépassé nañ ak ñeneen ak ñeneen bu yaa ngi boobu léegi non non non wax la. Hmm. lu tax su fekkee ragaluñ hmm. su fekkee kay ils sont sereins. man lu ñu may empêcher ma voyager. su fekkee ils sont sereins. lu ñuy empêcher kële lu ñuy dàqee Moustapha Diagne su fekkee ils sont sereins lu ñuy dàqee Mounir aussi lu ñu leen di dàqee. su fekkee ils sont sereins su fekkee ils sont sereins lu ñuy wooyee Pape euh, le maire de Passy Pape Cissé di ko proposer ay xaalis ay ay poste muy bañ mais loolu politique la mais gis nga politique mën nga mm. ko def fekk xam nga politique conviction moo koy def conviction politique du xaalis du ay privilège politique du loolu politique ay conviction la ay ngëm-ngëm la mm. da ngay ni man war naa mën politique pour yegg benn niveau pour pouvoir servir mon pays c'est comme ça hmm. la politique politique du ay affaire ay poste ak affaire yooyu ñoom ñoom ñoo toll foofu ensuite hmm. tu peux pas prendre quand même les choses de la république xam nga primature hmm. dafa am importance tu ne peux pas à partir de ta position ngay wax ni oui écoute tu sais moi je te donne ça ou je te nomme pour que nga ñëw ci man pour man c'est pas de la politique ça c'est mm. ça c'est encouragé loolu mooy encouragé yow yëgoon nga parce que ci ñoom nga bokkoon waaw mais loolu mooy li ngay dénoncé nii loolu boobu ñun yàgg nañ koo dund dama man musuma théoriser transhumance j'ai toujours été ngay ngay ngay li nga xam ne def nañ la ko aéroport ñaa injustice la ñaata nit sénégalais ak ay politiciens ñoo fi dund injustice boo xam ne nguur gi ñoo leen ko teg mais loolu def naa yéen ba mu dalee seen kaw ngeen koy doogu mën a dénoncé mais xam nga en réalité ñamu dal seen kaw ñoom mm. décrier nañ ko. waaw du dëkk. waaw ba tey jii nga yëg ko. Mhm. de la même façon moi aussi noonu laa ko décrier ba nga yëg ko donc ku nekk. da ngeen a jël seen wàll rek kon. waaw mais bon de toutes les façons c' est des choses yoo xam ne nag ah wax dëgg yàlla ah. Mm. moi je m'y attendais. Mm. man bettuma. Mm. naqariwu ma defuma dara. wax dëgg yàlla c' est la politique donc. waaw mais Abdel Dionne dañ ko ragal. Eh, ñeme wuñ ko. seen candidat bi nag gis nga nag eh, El gisuma man sincèrement gisuma lu nit di ragal ci moom ak ban ak benn kii lu muy ragal. <laughs> waaw ndeysaan tu lii la lay Wade doon wax ci Macky Sall j'ai vu ak un petit camion. sooy fàttaliku 2000 ndeysaan. yéen Mohamed Dionne. waa dégg rek. waa dégg il n'est pas populaire. non gisu ko fenn. non xam nga depuis bi mu déclaré candidature am ba léegi. mu mel ni ku ku ku replié wu anam gisuñu ko fenn présence am déjà moom ci réseaux sociaux yi sax léegi nii sax la commencé ñu koy gis mais il koo gis fenn mais madame léegi anam seen candidat madame hmm. Mohamed Dionne hmm. Sénégal yëpp ko xam Mohamed Dionne hmm. c'est le seul non c'est la deuxième personne à avoir fait avec Macky Sall. Mm. le tour du Sénégal Mohamed Dionne soo demee ba Sédhiou xam nga moo nekkoon tête de liste quand même. deux mille dix deux mille dix déglu rek. mën nañu koo xam waaw mais xam nga kooku. mënoo ensuite non c'est-à-dire ensuite madame non non non maanaam madame. waaw mais pareegu ma non. ku la mais mais ku la manœuvre wul. xam nga newoo ci ñun pour xam ba xam ñu ngi manœuvre. waaw ñun sénégalais gisuñu ko. waaw mais xam nga xam nga waaw mais xam nga méthode yi ak stratégie yi bokkuñu. Hmm. xam nga manœuvre ñi xam nga wax ak liggéey àndul gis nga heure fës dana jot. Hmm. bu boobaa di ngeen xam ba xam liggéey na wala liggéeyul wala am na nit wala amul nit xaaral ba pare naa yi jàll nga xool. ah parrainage bi fi ngeen ci toll. mais pare nañ la yàgg na. kooku bokk la même baat bi toujours pare nañ ah. non parrainage bi xoola c'est réglé ñun boucler nañ ko ma am suñu réserve bu doy toog di xaar. te on sait comment ça se am na électorat sérieux ba ba mën a matal seen seen seen non damay laajte rek ah, damay laajte ndeysaan mais euh, xam nga li ci kanam raw li gët. Mm. comme on dit. Mm, parrainage kon féete na boor. yàgg na caution bi na yàgg na boobu déposé nañ ko keroog. déposé ngeen caution mais oui quand même euh, Sénégal 24 bi sax normalement war ngeen cee wax parce que euh, toute la presse a repris ça Mohamed dépose sa caution. mu mm. si moo dem déposé caution wu 30 millions moom la ñu njëkk a foofu côté. non c'est réglé boobu féete na boor. comme parrainage bi féete na boor. ñun kay fi mu nekk nii. campagne électorale la ñuy xaar ak élection bu soobee yàlla. Hmm. waaw loolu moo ñu des. seen campagne de yàkkamti naa koo gis nan ngeen nan ngeen nar a jëflanteeg ak ñi terrain bi. ah mais non c'est vrai que dañ koo miin nag parce que ah. tamit. Euh, non dama lay wax dañ koo miin ñun ñun du du en dehors de campagne sax le président euh, Mohamed Dionne a fait toutes les régions en tant que premier ministre pour y aller pour travailler. mais yaakaar ngeen élage ah parce que boobu temps bi ngay lim ay victoire am fii boobu dafa fekk mi ngi biir APR oui kàngamu affaire yi yëpp dar ko. oui ñëpp indi seen doole par si par là jox ko. moom it mu indi boosam. waaw moom it mu ah mais loolu. mu indi boosam affaire la woon mais. mu indi boosam nii génn na. waaw kaay wax la def coalition boppam teg ne demeeg boppam. léegi loolu noonu est-ce que yaakaar nga ne dina ko amaat est-ce que di ngeen am daal. mais mën naa am lu ëpp loolu. le prochain présidence incha allah incha allah bu ko yàlla yàqul ça va être Mohamed Boun Abdallah Dionne. Mohamed Dionne waaw oui parce que xam nga lu dafa mën liggéey. et puis il est clean propre. bokkul ci ay affaire ak propre moom non déglu rek ci côté côté boobu boo koy wax sénégalais ci Mohamed Dionne duñ la gëm ne. parce que xam nga duñ la gëm. pourquoi mi ngi ànd ak Macky Sall pendant combien d'années. nekk premier ministre am. jafe-jafe yu yooyu yëpp. nguuru Macky Sall yi ñuy dund. moom premier ministre am mais ma waaw déedéet ba muy nekk premier ministre amul benn problème. amul zéro mort amul problème. zéro mort. te amoon na manifestation manifestations ah. am ku dee. ci bi muy nekk premier ministre. et géré na fi ay manifestation man j'étais à ses côtés on gérait ça manifestation nit ñi manifester après ku nekk dem ñibbi zéro mort. Mm. comme je te dis demal nga laaj syndicat yi lu bari moom moo ko atténué bi mu fi nekkee cinq ans wu Macky Sall yi amul benn coow bu fi am bu jóg benn fi jógoon mooy le pétrole et gaz bi mu ci waxee. Mm-hmm. ci lañ gëj waxati ci pétrole ak gaz ba ba muy dem keroog la problème yi commencé mais. sooy xoolaan sooy xool tous les chroniqueurs. Mm. Cheikh Yérim Seck c'est un grand chroniqueur tu es d'accord. Mm-hmm. lui-même il dit la même chose li muy wax dëgg la bi mu fi nekkee. Mm. lu bari lay régler ci suuf. ba pare doog a rendre compte Macky Sall parce que moom dafa xam luy gëddu président parce que dafa xam luy président de la république. Mm. xam na luy post bi. jomb ko jaaxalu ko. parce que da cee yàgg. xamoon directeur de l'industrie nga jóge fa tu maîtrises l'administration centrale ñu def la euh, chef du bureau économique de Paris. nga jógee chef de bureau économique de Paris ñu def la directeur de cabinet euh, premier ministre. nga jógee directeur de cabinet premier ministre dellu ONUDI di tu gérer les seize pays d' Afrique centrale amul foofa deful usine ak yooyu nga jóge fa. ñëw ñu def fi mu nekk nii premier ministre. du Sénégal. mais à temps kooku euh, soo soo soo soo soo soo soo soo soo amul xam-xamu état dootoo xam xam-xamu état. mais loolu yëpp El Hadj dëgg la mais Sénégal. lu takk ci Macky Sall lañ bëggatul. mais takku ci moom. mais ci la takk takkoon na si xanaa tey ngeen mën a ne takku ci woon. mais déglul non xam nga loolu aussi ci ñoo xam ne dañuy gis Macky Sall na bañ nag dañu ko tuddee woon bàyyi faalu Macky Sall bu Macky Sall mosoon wax tiisoo mu ne yar xamu kan la. tey jii fekkee dañoo tànn Amadou Ba moo tax mu gedd dem ber daara. loolu noonu il faut ñu tenir ko en compte. waaw mais kaay ma wax la mi ngi naan la du ma mus a wu ci ci Macky Sall tey jii bu nekkee candidat tey ñaan ko mu bàyyi <coughs> war a mën a ñëw euh, adhéré si ñoom jàppaleen politiquement loolu ngay loolu noonu est-ce que Sénégal loolu il faut ñu dañ koy bàyyi xel. mais Macky Sall kaay ma wax la. moo tax yaakaaruma ni Sénégalais dinañ leen wóolu. ba mu leen jox mais mais xam nga yow en réalité même Macky Sall. Hmm. xam nga quand même quoi que tu puisses dire quand dina am ay Sénégalais yu ko wooteel. xam nga li ngay wax nii pourquoi je ne suis pas d'accord. Hmm. parce que gis nga dëkk bi. Mm. kenn moomu ko. am na ñu bëgg Macky Sall dañuy wooteel Amadou Ba candidat bu Macky Sall. Mm-hmm. mais am na ñu bëgg Mohamed Boun Abdallah Dionne dañ koy wooteel am na ñu bëgg ñeneen dañ leen di wooteel donc dëkk bi. Mm-hmm. amul kenn yaa a personne qui fait l'unanimité mm-hmm. et puis nanu waxante dëgg moom li wax leer na. tant que Macky Sall était moom du candidat mais Macky nekkatul candidat bokkatuma. mais su ko neexee kay. vraiment mën na dagg langue gi ne mais man aussi damaa bëgg dëkk bi mm. maintenant cinq ans prématuré yi ngeen di wax cinq ans yu rafet la amul dara lu ñaaw lu mu fa def amul benn scandale bu ñu fi dégg amul dara lu ñu fi dégg lu ñaaw au contraire tous les chantiers yi ngay gis usine yi nekk fii tey jam ñaajo yu bëri c'est lui qui l'a sorti mm. de terre way parce que c'est le directeur de l'industrie dafa xam ni ñuy tabaxee ay normes usines ak yooyu yëpp c'est dans sa tête c'est réglé pourquoi Macky mënu ko woon bàyyi saa yu jaaxlee xëcc ko parce que xam ne dafa xarañ dafa mën liggéey mm. c'est ça la vérité sénégalais yi aussi noonu lañ ko xamee da nga naan yow xamoo ko mais soo laajee Sénégal jusqu'au fin fond koo laaj même les syndicalistes les enseignants dañ naan la bi mu fi nekkee amuñu benn problème parce que tous les quinze jours c'était conseil interministériel sur le non les négociations tous les quinze jours et moi j'étais là c'est moi qui convoquais la presse ñuy ñëw tous les quinze jours dañ doon def conseil interministériel pour n'importe du enseignants yi rek ah mm. les secteurs santé éducation tout le monde Hmm. donc amul bon donc lui c' est un travailleur loolu ñëpp ñu xam ne si est un travailleur infatigable. Hmm. moom euh, liggéey moo ko gënal lu ne. Hmm. c' est ça. waaw mais dinañ dinañ ci xam dara sénégalais yi dinañ ci xam dara. incha dinañ ci liggéey boobu dinañ moom comme Gossas rek il faut ñu wax tuuti Gossas. mais vas-y. Euh, loolu ngay wax xam nga li li olof naan balaa ngaa laax jaay laax lekk. dëgg la dëkkam ba Gossas. Mhm. lan la fa def. Gossas waaw. <laughs> waaw li mu fa def ba nga jàpp ni waa Gosaas war nañ koo mën a gunge déjà dama lay jox benn chiffre rek moom est que waa Gosaas sax ànd nañoo ak moom <laughs> dama lay waaw damay laaj billaay laaj waaye waaye waaye kay wax la waaw bàyyil ma la Gosaas mm. dernière élection xam nga ñaata la fa gagné mm. quatre pour cent c'est-à-dire Gosaas duñu sax fooy Mohamed mm. oui parce que li mu leen defal dafa rëy wuyu ma ils ont un centre de formation de un milliard deux cent moo ko fa def. Mm-hmm. seen stade bi. stade ban. Euh, stade Gossas bi. stade bee gis nga stade bi ni mu gis nga stade ni mu mel non bien vu j'ai bien vu dama lay wax. il a dit au ministre à l'époque mu nu mu tuddati euh, Matar Ba. Hmm. ne ko fii foog nga defal ma fi gazon synthétique. gisuma fa gazon waaw mais dama lay wax rek sans compter. tous les cadres de Gossas. stade bee ku ci amoon. oui mais boo ciy boo ci nekkee di wax. waa Gossas ñii di dinañ la. waaw mais peut-être que après ñoom ñoo ñoom. waaw mais ñoom ñoo yow dem nga stade Gossas. ni mais une fois une fois dem naa fa. peut que ñoom ñoo deful li mu wax mais moom bëggaloon na Gossas xale yi ay gason synthétique sans compter maintenant mais. centre de formation bi xale yu jigéen ñi xale yi. kii centre de formation moom d' accord naa. moom dong moo fa normal. mais moom la la mais stade c' est un milliard deux non bul wax loolu. sans compter non dama lay wax benn affaire aussi biir Gossas. Mm. le programme nu mu tuddee ci Promoville. Mm-hmm. def nañ fa ay tali. Mm-hmm. ça c' est lui. Mm-hmm. defar nañ Gossas ay tali. ak lampadaire ak lampadaire yi. donc tout ça c' est doo wax mënul def dara Gossas au contraire il a beaucoup fait à te war a yegg. oui mais lycée bi en réalité lui ba mu fay nekk au moins. ñafe na xale yu juddu woon moom ñafe na ba au moins ñu inscrire dans le budget lycée Gossas maintenant nag su fa jógee gars yi yeggali wuñ ko c'est pas de son travail et puis le lycée c'est lui ah c'est le ministre de l'éducation nationale qui doit faire ça moom ba mu fay nekk. accéléré na affaire ba fi mu yegg. ba mu fa jógee après la majeure partie ñi nga xam ne euh, mooy population Gossas naka naka la nekkee premier ministre nga dëkk ci benn xam ne. ku ko xool xoolaat ko. non attention bi muy dugg Gossas ak xanu kan yow xam nga ni Gossas ba mu fay dugg ba muy nekk premier ministre ak léegi Gossas a un peu changé quand nañu waxante dëgg non ouais mais changé na wax dëgg yàlla am na loo xam ne waxante mais changé na non non non moi je ne waaw mais mais mais pour man waaw mais man mais man li gën ëpp importance kay mooy centre de formation professionnelle. pour tàggat xale yi centre de formation ultra moderne pour tàggat xale yi man mii ngay wax ni mm. man j'ai dormi au niveau du centre de formation professionnelle. lycée bi tamit. lycée lycée lui il avait inscrit dans le budget comme je te dis. maintenant nag c'est au ministre de l'éducation nationale d'exécuter. mais Gossas li ñu fa war a exploité moo bëri te moom defu ko moo ko tey jii ba ma nee population Gossas euh, dañoo ànd Gossas li fa manqué bëri na. non Gossas li moo ëpp bi mu avant muy ñëw. Hmm. avant muy ñëw li fa manqué woon ëpp. Hmm. def na ci li mu mën. Hmm. nañu waxante dëgg. dañuy si des ñoo waroon yeggali. mais évidemment mais euh, euh, ñi nga xam ne ñooy leader ya fa ya fa nekk je parle du maire Adama Diallo l'ex-maire ñoom Madiagne Seck conseil départemental waaw ñooñu est que euh, am na euh, Boun Abdallah Dionne am na na seen soutien. bon ça mois je ne saurais le diir pour l'instant hmm. franchement mais je sais que. la euh, population ah, la mais la population qui vote. Hmm. moom lay votel mais ñooñu dañoo am mais dinaa dinaa la wax waaw danaa la wax benn affaire nga décoder. Hmm. Gossas di nga fa gis score boo xam ne pour Mouhamed Boun Abdallah Dionne. di nga ni non non non c'est pas vrai. dañoo bëgg seen doom jooju lu leer laa lay wax. te du waxantu de. mais xoola de de tout le temps parce que mësul loxo mësul jóge Gosaas. Mm. moo xam lu nëbbu la moo xam lu feeñ la loxoom mësul jóge Gosaas ba bi muy nekk ONU loxo mësu fa jóge parce que foofu. Mm. moom il a Gosaas au cœur hein fa la da et fier. Mm-hmm. soo fa duggee dalay lay wan ni ne man fii laa juddoo gis nga kaas bi. Mm. fii laa màggee fii laa juddoo man dem naa fa ak ay autorité ak ay kilifa ñu yegg si jour boobu. ba benn kilifa léegi léegi. Euh, excuse-moi je vais même le citer El Hadj Diouf mhm. le footballeur international mhm. mu ne mais quand tu entres à Gossas da nga gis ni mu fiere man ak El la ni xoola case bii laa juddoo et puis case bi man fii laa màggee mhm. donc il a Gossas au cœur dafa bëgg Gossas euh, léegi loolu moom kenn mënu ko ko reprocher organiser ngeen dara mm, Gossas pour natt seen bopp mais Gossas keroog rek dem nañ keroog keroog def nañ fa descente Gossas yëngu Mm. xanaa gisoo image yi. léegi gisuma ah, naan gisoo ko waaye keroog rek descente rek la fa def de yendu gosaas yëngu kooku su fa naree fanaan nan lay mel <laughs> attention. baax na pas n'importe qui euh, dinañ terminer El euh, ci deux points rek comme temps bi dem na wax ci actualité laal ko jeexalee foofu euh, benn bi Sonko démb doon na def procès dellu ci réhabilitation et cetera délibération bi suba la. Euh, ban analyse ngay def ci ci situation boobu ak délibéré suba bi est-ce que yaakaar nga ni suba dina lépp dina jeex benn yoon. mais woowee non lépp du jeex parce que ne nañ après su paree foofu aussi euh, s'il est pas d'accord mën na dem euh, fële nu mu tuddati cassation je crois. Mm-hmm. n'est-ce pas pour cour de cassation je sais pas donc man c'est un procès en cours que je suis avec xam beaucoup de désolation. Mm. voilà c' est vrai que mënoon naa bañ a yegg fii yëpp. mais comme dem na ba yegg fii. Mhm. et puis c' un procès en cours. Mhm. la justice. Mhm. man du ma ci bari li ma ciy àddu. Mm. li may ñaan nag mooy. <laughs> yàlla na nekk verdict non non non daw ma pourquoi may daw. pourquoi mm. moi je suis sénégalais comme tout le monde. sa dire li may ñaan rek mooy na nekk projet boo xam ni dafay gën a dalloo Sénégal nit ñi nekk ci jàmm ak salaam et puis. la république continue juuru élection ñu dem ñu voté ñay bokk bokk et puis Sénégal continue dal gii mu nekkee heure bi hmm. macha allah tu hmm. donc affaire yi il faut pas aussi que ñuy jaxase suñu dëkk moi je suis pas d' hmm. nit doo wax nit lakkal sa kër. nit du lakk këram. nit du lakk sàqam moom lay olof Njaay di wax looloo am. donc moi je trouve que Sénégal. moo transcendé ay. ñi ngay wax ni ñëpp ay Macky Sall wu Sonko wu tout le monde. Mhm. c'est pareil maintenant nag ku nekk il faut que mu am ku jiite. Mhm. yore lengay su paree kasak jox keneen mu téye moom itam kasak. Eh, eh, noonu rek laa ko eh, jàppee sur l'affaire maître Moussa Diop et Aly Ngouille Ndiaye. sur l'affaire maître Moussa Diop et Aly Ngouille Ndiaye je aussi désolé. Mm. que nekk à ce niveau de débat. ay maître Moussa Diop il a fait des révélations am na ay jamaa yu kële waroon ñële tontoog affaire yooyu pour moi mhm. tout ça c'est pour l l'atmosphère alors que Sénégal heure bi soxlawul loolu Sénégal xamal lu mu soxla non même pas diversion mais euh, peut-être que Moussa te dira que moi j'ai raison Ali Ngouille Ndiaye déjà il est convoqué je crois mhm, aujourd'hui il te dira que oui bon moi j'ai raison finalement Moussa a tort finalement tant que c'est pas aller maintenant au niveau du tribunal ñu xam ba xam dëgg la wala du dëgg. Mhm. mais man comme je li may wax li may ñaan. Mhm. mooy xoola nañu bàyyi coow lu bari li concentré wu voilà concentré wu ci li nga xam ne moom mooy les vrais problème du Sénégal mooy problème wu liggéeyu xale yi. Mhm. problème formation wu xale yi mais évidemment tout notre tout notre programme tourne autour de la formation et de l'employabilité de de l'employabilité des jeunes hmm. nga leen di former ba pare formation yu gaaw ba pare jox leen liggéey liggéey yu xarañ ngeen commencé woon ba ngeen nekkee premier non ñun voilà hmm. on va amener non seulement des ruptures hmm. parce que en réalité ñun dogaluñu woon ñun c'est Macky qui dit on exécute mais bu ñu demee ba jël lenge yi mm. ah mm. di gis beneen xaru kanamu Sénégal bu soobee yàlla mm. barki sëñ Touba on verra incha merci El Hadj <laughs> waxtaan bi neex na am na solo macha allah maa ngi lay remercier encore une fois ci disponibilité bi. merci di la bàyyi nga tàggoo ak ñu ñu doon seetaan. mais vraiment kontaan trop Ndeye Marème Ndiaye c'est la première fois ma ñëw fi mais vraiment seen télé bi neex na. Mm. et émission bi neex na. j'espère que aussi bon sénégale yi ñuy seetaan di ñu déglu danañ ci jëlee njariñ. Mm-hmm. et puis nag di leen ñaan aussi. Mm-hmm. ngir bëgg gi ñu bëgg Sénégal ñu woteel Mohamed Boun Abdallah Dionne 2024 inchaallah mu téye la <laughs> ngay ñu doxal et kasa gi neex ñëpp nekk ci jàmm mm. amul fitna amul tëj am kaso amul xeex amul xuloo nitu jàmm voilà ñun voilà Sénégal de paix réconcilié tu ku nekk nekk ci li nga nekk mm-hmm. di ci gis sa bopp et nekk ci jàmm ak salaam nga xam da ngay tëdd nelaw ba yandoor mm-hmm. soo yeewoo dem liggéey soo ñëwaatee toppatoo sa njaboot ñun loolu la ñu xam mm-hmm. xuloo wuñu xeexuñu kenn voilà ñun c'est saa merci jërëjëf euh, damay remercier euh, balaa may jeexal euh, kii. waral coordination bi muy Socé Ndiaye boo ko gisee ne cellule de communication di remercier aussi waa coalition Bonne Dionne 2024 di leen souhaiter bonne chance aussi. merci parce que am ngeen wàll aussi ci réew mi parce que. li tabax Sénégal yaakaar na seen loxo mi ngi ci biir depuis longtemps. donc ñu ngi leen di remercier seen émission yaatal la woon chers internautes di leen jox dig daje beneen yoon allah. Merci.